asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 English Premier League bi la ñu koy dooree ak match bi doon dox diggante Arsenal ak West Ham United muy ñaari équipe yi nga xam ne ay dëkkandoo lañu ca capital bu foofu la ca Angleterre. ñu gis ne kat West Ham dafay xeex ngir bañ a wàcc Arsenal di xeex ngir teg loxo ci li nga xamante ne mooy championnat bi waaye ji fa ñu mujjee mooy dañoo mujjee match nul deux bi partout Arsenal moom mu amoon li nga xamante ne mooy chance ngir sax war a mën a gañe jongante gi. gannaaw bi mu jiitoo ñaari bal ci benn ba noppi am benn penalty waaye ki nga xamante ne mooy Bukayo Saka dal di ñëw raté penalty boobule. tegul ci ay minute rek ñi di West Ham United dal di ñëw égaliser ak kii di Jarrod Bowen kon ki nga xamante mooy Martin Odegaard ak Gabriel Jesus ñoo dugal ñaari bit yi nga xam ne Arsenal am nañu ko Benrahma ak Bowen ñoo marqué pour West Ham United muy 2 bi partout. léegi nag mel na ni Arsenal kon mu ngi commencé di bàyyi ndekku ndax bii mooy ñaareelu jongante boo xam ne ñoo koy tegale di def match gannaaw bi ñoo amee match seen diggante ak Liverpool ci semaine bële tey jii ñu ñëw amaat daal di amaat li nga xamante ne mooy match kon 4 points daal dina rëcc. mën nañu wax ne juróom-ñetti poñ lañ waroon a jiitoo jamono bi Manchester City 4 yi rëcc na leen mu daal di des 4 points kon 4 points képp moo dox diggante. Arsenal ak ñi di waa dégg Manchester City te Arsenal tey ji na match boo xam ne Man City jógul ko kon 4 yooyu mu jiitoo Man City voilà 3 yi ñu ngi en danger ndax bu fekkente ne Manchester City gagné na match boobu nga xam ne am na ko su boobaa da gis ne benn poñ keppay dox digganteem ak Arsenal kon championnat bi daal jeexagul Arsenal ni muy doxee fan yi gars yi doy na waar waaye nag am beneen équipe boo xam ne moom itam bari Barça tey ji dafa amaat match nul gannaaw bi nga xamee ne kat semaine bële dafa amoon match nul diggante mag Girona tey ji mu am match nul contre muy ñaari match yoo xam ne daf koy tegale voilà di def match nul kon mel na ni ñoom itam 4 points daal leen rëcc mu mel ni jamono bi bu fekkonte woon ne gañu woon nañu ñaari match yooyu 15 points la ñu jiitoo ñii di waa Real Madrid waaye nag gis nga ne mbir mi demeewu ni kon dafa mel ni maanaam fi ne nii Barcelone 11 points la ñuy war a mën a jiito ñi di waa Real Madrid te bu fekkente ne doxin wi continué na voilà ñoom it seeni mbir dinañ ko dal di càmbaraat kon mel na ni championnat boobu ba léegi moom itam jàppoon nañu ne jeex na ba noppi waaye kat mu ngi bëgg a teexel ndax des na lu toll ci 9 journée te 9 journée kat li ci xaj gaa yi bari na. voilà léegi nag gannaaw loolu ñu gis ñi di waa Barcelone seen joueur bi nga xamante ne mooy Ansu Fati. moom nag ñi di waa Tottenham dañoo bëgg dégg maam këpp seen kees ngir daal di koy signé maanaam pare nañu daal lépp loo xamante ni dégg maam jar na ko rek ñoom dinañu ko def ngir daal di signé Ansu Fati bi nga xam ne xëy na ñu bari gis nañu ne kontaanut foofu la ca Barcelone ndax moom daanaka remplaçant lay faral di ñëw ci li ëpp ci jongante yi voilà Ansu kon jamono bi el bu ñu sukkandikoo ci kayit xibaar bii di Mundo Deportivo xam na ne ñi di waa Tottenham pare nañu ko signé ci koppar yu takk bu fekkante ne jar na ko léegi nag ñu gis ki nga xamante ne mooy Habib Diarra moom nekk jeune sénégalais bi nga xamante mu ngi foofu la ca Strasbourg tey ji mu marqué son premier but professionnel voilà boobu moo nekk son premier but en professionnel moom Habib Diarra bi nga xamante ne 19 ans la am juddoo fi nga xamante ne mooy Géejawaay ci atum waaye nag mu nekk gone goo xam ne day donte ne sénégalais la daal dinañu koy sélectionné ak li nga xamante mooy équipe jeune yu France na a dégg dafa marqué li ak équipe am boobale di Strasbourg ci match boobu nag ki nga xam ne mooy Habib Diallo xam ngeen ne bokkul ci ndax dafa amoon carton rouge kon dañ ko suspendre moo tax du mën a jouer ci jogante googule voilà léegi nag ki nga xamante ne mooy Crépin jaata moom itam tey ji jii buteur la foofule ca France ak AS Monaco ci match bi nga xam ne ñu ngi koy am seen digganteeg Lorient mu nekk diggante Crépin Diatta contre kii di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng Crépin Diatta moo dugal bit bu njëkk ci jogante googule boobu sax mooy quatrième bit boo xam ne dugal na ko ci li nga xamante ne mooy Ligue 1 ñu gis ne ki nga xamante ni mooy Toni Kroos moom nag jamono bi kayiti xibaar nañu biral ne daal dina joxe accord am ne dafay prolonger contrat ak Real Madrid pour benn at maanaam ba atum moom mi nga xam ne ñu bari ñu ngi doon jortu ne xëy na saison bi bu jeexee dina daal di dégg maam jël retraite maanaam daal di tekki tànki tekki dal yi ndax loolu mooy li nga xamante ni kat moom la mébétoon moom daal dafa ne woon ne day du prolonger contrat fekk saison bi dégg maam jeexul su ko defee mu xool ndax moom mën na indil Real Madrid dara bu gisee ne moom daal xëy na man mënam wala xarañteefam wàññeeku na dafay tekki dal yi waaye dootul dem ci beneen club naan dafay football yi léegi nag Real Madrid ne nañu kayiti xibaar yi eh, li ñu biral mooy daal dinañuy naxa naxaka neexal maanaam di mocc ba fi mu ne nii course daal dinay nangu ne dalee prolongé contrat yokkaat ci beneen at ba déwén su ko defee buy tekki daal yi muy soog bàyyi loolu nag yaakaar naa ne xibaar la boo xam ne gars am na solo kon gars yi loolu fi gënoon fees ci tënkum xibaar continuer leen di suivre Sen Sport News Channel